الى جهه من اي دغائق daal di day ah ma ne la buur wax na Sud Quotidien ne lu jëm nag ci wàllum doomu aadama yi nga xam ne dañ leen a rey kon ci diwaanu Casamance kay ah président Macky Sall day daal di nay naqarlu lu mel lool nee na mitti na mbir mi kon mitti na lool waaye lii nag duñu ko nangu te nag duñu ko mës a nangu laa la wax parce que nag sur lay Sall ngaari lam tooro ah. waaw président Macky Sall ne tant que maa ngi nekk président de la République bu Sénégal day waaw ma ne la fii yoon rek yoon rek force restera à la loi loolay dëgg waaye lu jëm nag ci wàllum organisation ay élection ci biir réew mi day ma ne la Sall ngaari lam tooro wax na ca parce que président Macky Sall ci enquête yéene kaay nee na duma mës a fal ab militaire ca ministère du intérieur yaa jum wala maa jum Macky Sall ne maa ko wax je ne vais nommer un militaire à l'intérieur a ah, ah, président ni waaw sur quotidien ne fal ab doomu aadama boo xam ne day tëree njaaxaanaay day ca intérieur waaw Macky Sall day ma ne la bëgg-bëgg opposition bi ah daal dina koy football na tegee ko nee way eh samba président Macky Sall waaw maa ko wax parce que ni ñuy organiser ay élection ci biir réew di système électoral bi day waaw ma ne loolu lu leer la leer na nañ ma ne leen a jël bu dee nag ñoom loolee la ñuy xaar opposition bi bu yeboo ñu dem toog eh way Samba toog waaw toog président Macky Sall ne dama ne askan wi boppam ñoom ñooy dogal la wax sénégalais waaw ñoom ñooy wax ba xam kii dana nekk président waaw wala déet cay candidat yi est-ce que Khalifa Sall dana nekk candidat le soleil yéene kaay ne en tout cas atam nga ca CEDEAO gee day ah eh, Khalifa ñàkk de maar day taali tribune yéene libération yéene kaay ne en tout day caisse d'avance eh, waaw waaw ci Khalifa Sall sax moom ah daw bay daanu uh-huh. waaw waaw ab liberté provisoire di bàyyi nëgandiku rek yow nga jël ñaari milliards daal di fay kon ab caution ah waa Khalifa mii lan lay yàkkamti maître El Hadji Amadou Sall ne gis nga Khalifa moomee ah, ah. dañ koo bëgg a de ubbil la ko tijjee ne kaay ma ne la maître El Sall ne Khalifa Sall ak Abdoulaye Wade amoon nañ fi ay jafe-jafe dëgg la waaye jàmm ca mujjee mais gis nga président Macky Sall président sa bëgg-bëgg boobee ah. ah mën na guma caa tontu na heure bii Macky Sall ca la waxee Khalifa Sall ne ko gis nga boo defulee lii ma la sant nga ñëw jàppale ma ma am deuxième mandat waaw danaa la yàq eh waay Samba eh waay mbéte jimboor yi ma ne la président Macky Sall ne ko boo ñëwulee jàppale ma yow Khalifa dinaa la yàq je vais te détruire eh waay Eh, waay fa yàlla yi defaree yàq yeggu fa maître El Hadji Amadou Sall ni lii la ko Macky Sall wax laa la wax xalifa boo ma jàppale wulee danaa la yàq laa la wax je vais te détruire lii tax ba président Macky Sall day daal di yónnee maire bu Ndakaaru Ndiaye Jël Diop gaye waa inspection générale d'État ne ma IGE waaw maître Amadou Sall yamu ca ndaxte nee na looloo tax nag maanaam ñuy njëkkante kon dossier tey bi lé ba koo ata gaaw daar daar ko defee na cour de cassation kay daal di condamné définitivement a a la République waaw di xool procureur sëñ Bass daal di ree ne ko monsieur le procureur d'accord danañu la aar protéger la waaye yow tamit day ñoom ñu yombalal kon liggéey bi ci dossier xaaf ci dossier xaaf ba léegi ni day enquête yéene kaay nee na day waaw rafetluwul benn yoon li Serigne Bassirou Gueye mi tuumaal kon waxal ko Khalifa Babacar Sall ah, ah waaw maître Barso xamal procureur ak waa réew ne Khalifa Sall day homme de principe la maanaam lu mu def da koo gëm benn ñaar Khalifa am na kon am jaar-jaar woo xam ne day woo am fasala un parcours éloquent wala wax lii de li nekk bi yéene kaay ne yorinu gaz beeg pétrole bi waaw ma ne la Ousmane day wax na de waa ji kay livre sax la ca bind ñaw pétrole bi ah musiba mbaaba ma ne gis nga dossier Petrotim ah musiba mbaaba kumba lay scandale biir la sax te nag président Macky Sall ka da caa tax tax ba ne ca rip rip rip rip laa la wax Ousmane Sonko ne waaw parce que président Macky Sall day ma ne la moo d'accord signé dossier Petrotim te ba koy signé moom président xam na xel ne gis nga yëngu ma koy ko tey pétrole bi mu kon wàllum fraude ci suñu ñaari waax yii nga xam ne ñoo yor suñu pétrole bi Ousmane Sonko ci tribune yéene kaay yemu ca ndaxte njiital Pastef nee na moom président Macky Sall ci boppam keroog ba muy falu taxaw waat prêter serment waaw ma ne la waatam googu eh. Macky Sall war na ko de violé na bi waaw waaw violé loi bi suñu alal ji ci loxol rakam ji di Alioune Sall wax cay pétrole ba pétrole boobu vox populi nee na bi kay fii ci Sénégal waaw Ousmane Sonko ak Abdoul Mbaye ak Thierno Alassane Sall waaw yëkk lu mel ni xamee njabootuk Sall Sall gi ma la ñetti responsable waaw wane nanu ne président Macky Sall ak rakam jëlee di Alioune Sall day danoo jaxat-jaxatee suñu alal ji de maa la ko wax Ousmane Sonko ne Macky Sall ci boppam waaw moo ko wax moo ne dossier bi dara beesu ca lu dul li ci sama rak ji Alioune Sall dugg waa kon kay la ca rakam jo dugg di Alioune Sall looloo taxoon mu signé Macky signature Ousmane Sonko ne te gis nga bu ñu bëggee def ay mbirum dabale njuut njaaj ak yooyee waaw maguy da ngay daal di gis wax ay mbirum technicité ne te gis nga coowal pétrole bi eh. daa am ay enjeu yu doy waar ci élection yi laa la wax ah, ah. waaw waaw ak punkal yi nekk ca bitim di puissance étrangère yi te Macky Sall na ko ca xam lu bare bare la sax yow mag ji Macky moo am kàttan signé ay décret rakk ji Alioune Sall moo dox diggante ak Petro-Tim mandataire Goroba mooy président conseil d' administration bu Petrosen beneen Goroba mooy président conseil d' bu Sahar ka ko jëloon yóbbu ko Petrosen moo ko jël bombardé ko Petrogaz eh way Samba Ousmane Sonko ne gis nga yorin gi de dañ koo ndomba de ab grand boo xam ne nga ay ànd waaw ëpp na ñaar fukki at laa wax ba ñu nekkee ñoom ñi te Aly Ngouille Ndiaye mii moo nekkoon ministre énergie moo ne ca kaw moom Aly Ngouille Ndiaye moom lañ dénk élection yi xaayaar na ko dégg séeréer la ne kay ne en tout cas doomu ñuy rey ca Mauritanie gee waaw ma ne la waa ma a waaw nee na gis nga suñu diggante nag ak réewu nasaraan yii ñun africain yi waaw mbirum jaay doole la rek ak caxat-caxatee kon suñu alal ji yéene kaa yi ne Idrissa Seck nag ko ay noona mën a waxal waaw ku gëm boppam la de te ba tey xeexkat la maa la ko wax dem na ca lambu ja ne digganteem ak Ama Baldé day moom Papa Sow waaw Modou Lo koy jàppale de pire sax lamb joojee day le 17 février la Assane Ndiaye fa jaar nee na dinaa indi Wally Seck mu concert ñëw danaa wàññi billet def ko 2000 francs eh way Samba te nag danaa indi tam face à face Balla Gaye 2 ak Gris Bordeaux eh way Samba <laughs> alaaji lamb ci biir lamb la Balla gay 2 Gris Bordeaux day du amat si nil de ah yaakaaruma ko de Gris Bordeaux day dóor ay kurpeñ ba mu saf Balla Gaye bu la jàppee yàqu nga moo tax ma naa la alaaji tëjal